maa ngi wax tamit di interpeller suma suma mbokki homme d'affaires yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi parce que man wax dëgg yàlla maa ngi rafetlu bu baax di naw lu bu baax façon bi ñu def ak ni ñu ko defee waaye maa ngi yaakaar na nag war nañoo mën a dox leneen parce que nag mënuñoo toll ci réew mu mel ni Sénégal ak li fi nekk tey ci ay hommes d'affaires wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne xamante nañ suñu biir bu ñu toogee ñu ne réew mi yëpp hommes d'affaires yi fi nekk un la ñuy jéem a dajale pour joxe ko ci xew-xew bii dëgg naa ne loolu néew na lool par rapport ak li nga xam ne foofu la réew mi soxla tey bu taxawee ne ñu ngi soxla 1000 milliards waaw 1000 milliards hommes d'affaires yi ci réew mi yëpp na lañ mën a joxe mooy ne ñun kon wax dëgg yàlla war nañoo waxtaanaat suñu biir daasaat suñuy ngànnaay saytuwaat suñu bopp suñu biir ñu nu neen ñu poot póotum biir xool nag ban taxawaay lañ war a taxawaat parce que nag un wax dëgg yàlla kenn xeebu ko kenn xeebu ko parce que nag wax dëgg yàlla alali doomu aadama lu ci boroom génnee def ko moo xam daf ko dax ndax réewam moo xam daf ko dax ndax yàlla mi nga xam ne moo digle pour ñu digalante bu mu ci mën a doon rek dañ laa war a sant kon ñi ngi sant ñeen ñëpp waaye dama bugg daal ñu ñu ñu pootaat póotum biir moo xam ne maa ngi ragal na ci suñ suñ biir wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne nag buñ jaayee seen i daqaar ak seen i soble war nañoo mën a teg leneen lu luñ fiñ taxaw